أنت عبد الرحيم والرحمن يا خديم النبي السلام عليكم وتحيات الله برضواني مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بكم وعدا كل عرف القرآن leer gu yeneen bi la fi def mu juri leeram ku ko saf mu ubbi xol bi ba mu waaf dugal ca xam mbiri sangam yow ma lastu naka laaj nu ne ko te defi xaaj booba la door ne nanu waaj te dal nu fay yéen sunu yoneen moo njëkk waaw naka ne waaw nu dal ne waaw soppa ki bañ ku ne ne waaw tey déglu waatin ndigalam ruuy junga manax ragal yii ak cofeel di leen yëngal am na keroog ñu xamal xam-xam ba lañu ko xam yeneen bi booba mu ñu ñi gën booba laan booba la Cheikh metteel waa murid yi am booba la Bamba gañe baaba la waa yam fal waan fi tey boobalaan lu ne ci ne na njëkkam Cheikh Jaar may naana baaba la Bamba gañawaan baaba la waa yam fal waan fi tey boobalaan ñu ne ci ñun dinañ jëkkam li leenu tegtal ba fi tay ne ab sëriñ dëkk nu jay ku beru mel naa ni say juda dureenu garabam mbaaxu karaagaay la ma tey bonu karaag itam lu mooy la woon karaagay wéy di wéy lu ne di teeri fa mu jëm nu way meloon maa li fi tey waay amoon maa li fi tey lu ay xamoo mooy buur yàlla yéem naa kattanam ku yàlla won boppam mu gis ku yàlla yiir boppam mu gis ñii ko gis ñoo du ko gis mooy ñi ko reere ak ñi xam bu leen a ñaan buur yàlla yaana nan ko ñaan ko ñaan dafay soppi ku jaan mat lu giif til matam ñi ku leen a ñaanale añaan koy xëy jublu leen di wute jub fardandu leen dikki feneen palam palam jëfandu leen tey dëgëral du leen kuy dëgëral bu leen ko wax yolom alal ku yolom al dal di yolom ke la gënal ke la gënal moo la gënal ke la moo mata moo mata xam bi gën kii ma moo ma gënal kii ma te moom ki gën kii ma gën a lam ko moo may mayu yaram jaayante naa ak moom ba matal biti ki ku ma ci tal moo ma ba kenn duma la jël xol bi la fab jolu xalam jaayante naa ak moom ba matal biti ki ku ma ci tal moo ma ba kenn duma la jël xol bi la fab joxub xalam Cheikh Samba Diar may naana waxtaan ma ak moom ba matal waxtaanu xel wu ngeen bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xam yow ma lastu ba fi tey musula tàggoo te dunu may di yari ruubaam ba tey diggante ndigg ak yuraam xam turi taalibeem bu nay xam seeni baay ak seeni ndey xam seeni kër ak nañu ndey ku ne mu ràññ lay mbiram xam ña magante ak ña fay jiite di taflante ba tey xam ku ñu taal ba dootu fay ak kok du takki fii ba dem xam aji wopp ak aji xam ku ñu fajtal ba mu wer xam aji toppee ñu ber xam fu ñu dooree fu ñu yam fekkoon nu feeñu ko ba feeñal ko ca biir far ko fa fee ñalal mu xam ba fii ba fee gësul ko yëpp fi kanamam kiiraaya dañ ba seen wet lu luy pakkam nu boole toj ko san yëpp kuute nga toj ngir mani saw dim ngiram mu xam ba pam xam ña ko topp ñu dal di dal yëf yéene gub mu ne di sa baala ko topp te xam gannaawam xam kanam buur yàlla xam loo ko la waan ak la xewoon te din la waan ak la di woon din la waan lu ne mu far saxal mu dem du samaana ngi bu mat jugleen diye yi mat xut bu samaana ngi bu mat jugleen mat xut bu samaana ngi bu mat jugleen diye yi mat ku jéema ngant na ni mot di witi xamtil fu mu jëm Cheikh Samba Diarra may na Cheikh Samba Diarra hëddiya bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful bul ko dogo bayil moo tey mbiram hëddiya bamba ko jago ku def ni moom di ko jago ku ko deful bul ko dogo bayil moo tey mbiram li tax hëddiya moo ko moom laay bëgg a wax te mooy borom moo ko jago du seen morom nee leen gannaaw mooy kanam moo ko jagoo du seen moroom nee leen gannaaw mooy kanam Cheikh Samba Diar may naana Cheikh Samba Diar may naana leen taxaw déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba ay borom Touba wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba ay borom Touba bu leen ma ni ngeen cellal ku jug na ni cell te bañ di tam xam lu ngeen xam tey borom Touba te lii ma leen di yëgal lu bët gisoon la boon mu xëy di gis ko te lii jaglek borom Touba te lii bu dee jib bu déggoog déggi xol yi sa xoogam ngir biral ne ka tànnee foon ci kaw sëriñ si ñu gis ak kaw sëriñ si ñu xam te ñoo fi ñëbbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkka ya sakkoo jak taxaw fakka naa am dëkk si karta naa barke borom Touba dëkk si karta naa barke borom Touba dëkk si te booba ñooy ku gis xutub jamono bu am fi yow kaliw te jiital leen borom Touba jiital leen borom Touba jiital leen borom Touba jiital leen borom Samba Jaara may naana jiital leen borom Touba jiital leen borom Touba buur yàlla moo ko fi jiital tey ci kaw lu duluk sete te lay leeral mooy Touba yeneen ba may na ko yeneen ya ñoo ko mu dooni tas te de ko booleel borom Touba bay mindi fi jikkoom yeneen ba moo ko ñago mbaram yërmande mu jikkoy borom Touba xam-xam ba si isaamaam ci yàlla mul dosoon diggante gaaña la booleel te borom tuuba njambaar ga noon borom fergaat gu i gëj moom la yaaram ba jagleel te borom tuuba kalaam nga ñal keroog toofaan jall si tey ci xiiti ahmadu mi njiital borom tuuba lu doon fasaak borom maasaar ga moo ko jago maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba maanuk sooy buga mooy maanuk borom tuuba nguurug Suleymaan nga barke mbaa jotal xalimaam nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba nguurug Suleymaan nga mooy nguurug borom Tuuba busu Muusa mooy dun xaafi ay dara tey dun xaafi ay dara moo ñu borom Tuuba dun xaaf yaay dara moo junj borom Touba dun xaaf yaay dara moo junj borom Touba dun xaaf yaay dara dara mooy junj borom Touba alhamdulilahi rabbil alamin baril ak cant war nanu nun soppee borom Touba buur yàlla mooy sunu buur yeneen ba mooy sunu jiit bambaanu boot bis ba nun soppeey borom tuuba yeneen ba jiitu borom tuuba tafal ca gannaaw doy na gaar la gilliin borom tuuba doy na gaar la gilliin borom tuuba doy na gaar la gilliin borom tuuba doy na gaar la gilliin dana yaakaar liggéey leen borom Touba dana yaakaar liggéey leen borom Touba yéen ngay diine bu leen dàggee su ngeen dina law te ngeen ni jar dem seeti gànnaar xam ne Cheikh Bamba mi sellam ci moo ko jagoo la gaaña laal mësu koo laal bir na gànnaar rusu la laal la laal ndax moom du ragal a laal day jombala Allah ñu laal jëbbal ko gànnaar la ñuy defar di ko terloo loola moom la fi teg ti maam la ñuy for fii ba galaar wasif na leen jiiñ mu seef ko jiiñ Cheikh Lo am ñaar duna mooy waxtaan ba galaar sëriñ bi mu seefu la xam soxlaam mu seefu la gis mu soxla mbay laaj mbaa muy laaj na galaar bi mu seefu la xam soxlaam mu seefu la gis mu soxla mbay laaj ba muy laaj naka naan alhamdulilahi man jox naa sama yaajo xutbub jamono bi feeñ muy faj sama yaajo ma jekki baa may taxaw ma yew baa may nalaw ma noppi baa may taat muy faj sama yaajo gënta àll ki kër laa def fi man mu di fu ma fi toll di muy faj sama yaajo diggante wéet ak wéetal ak meroon jaxasa sunu diggante nu ndog muy faj sama yaajo yàlla la ilaha illallah yàlla la ilaha illallah yàlla buur bi la ilaha illallah ca yàlla la ilaha illallah yàlla buur bi la ilaha illallah ca yàlla la ilaha illallah yàlla buur la la ilaha illallah ca yàlla la ilaha illallah yàlla buur bi la ilaha illallah الله والبو لا إله إلا الله جاي لا إله إلا الله والبو لا إله إلا الله جاي لا إله إلا الله والبو بلا إله إلا الله جاي لا إله إلا الله والبو بلا إله إلا الله adduna faal way la jërul jaam bi faal la yoon adduna faal way la jërul jaam bi faal la yoon Cheikh Ibra Faal noo ngi ñaan faal ci maax yal na ñaan yépp nangoo Cheikh Ibra Faal noo noo ngi ñaan faal dellu ñaan aajo jaam ñi fajoo Faal noo ngi ñaan noo ngi ñaan faal dellu ñaan